Aliou Mamoun Sada Sal, parce que Sada de ñu defee rek départemental bi monsieur le maire war nañ parce que il faut battre le fer pendant qu'il est chaud pour remercier la population Lolo, loolu rek rek rek lañ ci remercier lenti ci parce que li yombul euh, dañu gis fii ci Wakhinane Nimzatt lu bees maanaam benn élan boo xam presque élan citoyen la ñu ngi à comprendre qu'il nous fal en 2012 sumb na loo il faut que nous puissions si kenn moomu parti Momoko, coalition Momoko, peuple sénégalais Momoko. lu tax tey ñu bëgg fësal suñu taxawaay ñun waa Wakhinane parce que dañ ko ñefe les gars dañ ko ñefe guddi ak bëccëg suba ak ngoon maa ngi xalaat par exemple am na benn heure mu critique bi nga gis Modou Mamoun nga gis mon frère Oussou Dia que je remercie et que ma gis ñom sada jël seeni ay auto di génné ci ay nit ñom ak ñeneen ak ñeneen ça veut dire on a sorti le vote dañu génné ci nit ñi parce que dañu jëmbatoon seen xel ni violence moy am vote bi du demee ni du demee nele etc etc kon nak ñun ñu tak suñu fil Wolu également suñu sécurité républicaine mais aussi suñu sécurité politique kon nous nous doon ce travail de tout ci ils sont véritablement à féliciter Quand le président Macky Sall avait raison de nous doon wax jaratul ñukoy woné parce que population yi xam nañ ko limu soxla ñu expliquer def li mat nous expliquer ko lu matul ñu expliquer ko kon nous suñu vraiment nañ santé population bi parce que c'est une population consciente Lors lan la tekki si nous nous nous ñun dañuy président Macky Sall il faut beaucoup plus d'écoles publiques parce que dafa am déficit physique si géejawaay des écoles publiques am nañ ci droit am nañu droit wax ko mu yok formation professionnelle bi en direction des jeunes yok né financement comme ni ko Bintu jaxaté waxé parce que fi ñun mérité nañ fi mutuelle boo xam 500 millions ba 1 milliard mo ci nekk ku soxla nga dem wuti té koku ñun ensemble dinañ ko xéx kon nak muy ministère bu la crédit muy ministère de la femme obligatoirement war nous gestu nous dire que ak devons nous dire ko def mbirum politique parce que gis nañu que dañuy indi résultat Je également gis nañu formation nous ci également euh, ci école yi les petites bourses yi ñu doon joxe ñom ñep ñu sawar si te ñu nit président wax nako néna dina fi construire inshallah université UCAD de 4 su soobee yalla ci géejawaay la koy def té néna lepp lu jëm ci culture créative manam culture urbaine ci géej géejawaay également la koy expérimenter lool lu mu tekki mu samal ñu suñu littoral def ci loo xamni lu am njëriñ la ñu bañ ko bazarder lepp lo xamni dañ ko ci def mu nekk njëriñu population yi parce que lolu aussi pendant campagne bi génn na donc ñun patch bi ñu waxu ñu que état du ci def lu ko neex parce que domaine public le wante nañu xalaat projet yo xamni ci population bi la jëm parce que fi waxina Nimzatt c'est une zone extensible de Faka parce que nous ak appelé population que wa golf parce que nous, c'est déjà un circuit fermé alors que nous nous sommes une zone extensible avec 6 de croissance de la population Moi, ni juddu ak ñiy à cause de l'exode rural ou simplement du phénomène de résidence c'est une cité vivante c'est une cité dynamique c'est une cité qui peut abriter les plus grands projets de la banlieue parce que dañuy Farrell, en général il y a projet projets, les zones qui sont urbanisées de la dans la banlieue moi, une cité enseignant ou ñu ne Air Afrique wala ñu Amour, ce c'est pas ça Guédiawaye Guédiawaye fi ngay a un problème voirie Fini un am problème assainissement fini un am problème éclairage public y a ñun population yi ci résultat bi sass nañu lolu té lolu mo wara a nekk suñu taxawaay ñun élu yi ci conseil municipal. yi également ñi nekk ci niveau central parce que le plus président di wax muy territorialisation des politiques publiques mu nekk lu takku suñu jappalé ci éclairage jappalé jeunes yi fu ñuy fowe je les yi parce que son école privée mais aussi féliciter les écoles privées pour le rôle qu'ils sont en train de faire parce que nous, sommes euh, taux de scolarisation de tollu parce qu'ils ont comblé un déficit énorme et à cette occasion je félicite l'association des promoteurs d'écoles privées nous avons ñu un enseignement de qualité pour que ku ku rek nit damay créer école comme nak ñom lañu sass pour que nous am pas seulement des écoles autorisées mais des écoles reconnues par l'État pour pouvoir bénéficier de ces subventions là parce que suñu avenir yu doom ci lolu la ñettel bi mbirum wérgu yaram dinañ fi tabax un poste de santé ci cité comico la mais dinañ defaat yenen école également ministre bi dina respecter parole parce que nee une zone Darou Rahman c'est anormal que mu nek fofu amul une école publique c'est une honte pour euh, la commune c'est une honte pour l'État du Sénégal duñ ko nangu dinañ ko xeex fuñ ko parce que dañu né territorialisation des politiques publiques ministre bi warul tok feulé rek ci bureau di tracer mais dafa wara a déglu maire yi déglu délégué de quartier di féliciter ci sen liggéey bi ñuy def ñu ngi contrôler éclairage ñu ngi contrôler les bourses de sécurité familiale pour que yeb jaar yoon lolu aussi lu ñu rafetlu la ñu xamni suñu ay alliés lañu les imams ñu ngi def sen liggéey ci yété bi l'église également à travers ses différentes paroisses vraiment di sante yalla di remercier ñep di len wax ni li sargal comme niko ko waxé c'est notre droit de vous remercier et de vous dire qu'aujourd'hui, que nous avons quasiment doublé